386 45 69 ña nga foofu ca Touba Daara Khoudous 9h ci suba la ñu ubbi ba 20 ci ngoon mun de argent muy wari joni joni ak ria képp koo xam ne si ne bëgg nga crédit da jaay orange ak tigo ak expresso waa kër soxna astu jaxate daal di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassir mu yàgg fi loolu te wér ak waa Mint service léppay baax ñu seet si ki nga xam ne mooy Abdou Lahad njaay médecin ñu gën koo xam si Abdou Lahad Ndiaye sopp Serigne Abdou Lahad Mbacké sama cameraman soo bëggee xam li may def si biir fekk ma ci biir ndax mbir mi moom fii dong la. moom ñoo ngi yëngu si njaay njaay mooy njaayu mercerie yi. Mhm. loo xam ne lépp loo xam ne téer yi soxla nañ ko. Mhm. ba ko di ko def si seen i mu gën a boo ñëwee fii da nga ko fi fekk. ndax Abdou Ahad Mbacke. ndeysaan borom daaree Kaamin. ndeysaan suñu lépp moom la. ndax lépp moom na nga ko jëmale tuddaleel ko ko. Mhm. waaw fii nag boo ñëwee si diwaanu marché Guédé. foo laaj place bi bàyyi laaj ma siira après dinañ ko wan. Mhm. lii buket yi ngay gis nii. waaw lii si xeetu bees bees yi la boo ko. dañuy jaay gantir ba pare boo ñëwee ñu tegaloo ko. lii ah, mu waaw tegaloo kon yow maanaam dañ lay. machine nit day ñëw jënd ba pare. waaw wëlbati ko tegal ko. tegal ko ko waaye. kon askan wi yéen a ko déggandoo. waaw léegi moom macha allah mooy bomb mooy bomb waaw mooy bomb mooy bomb ah, ñun lépp lu bees loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko rek dañ koy dem wuta ji pour jox leen ko quoi ñoom ñoo tax ñuy sonn ñun ñoo leen fi bàyyi wax dëgg yàlla maa bëgg seen bopp sa yàlla tax ñooñu mën nu ma leen a fay nag ma leen di sant di leen gërëm Touba diwaanu marché Guédé mhm. soo laa ci place bi balaat mercier dina la ko wan 78 105 21 14 bu nekkee Tigo bi tamit 76 752 57 48 incha allah rabi boo ñu si wooyee da nga ñu jot te am na whatsapp tamit. ah am na whatsapp allahu rabi lépp loo si bëgg tamit boo na ko envoyé dina la ko xoolal indi la ko. waaw mën naa leen indi naan fil. fël fëlaale sànnee ko def. sëñ Ndao sëñ Ndao. salaam mu ne kamet waaw tey moom maa la defaral sama bopp tey soobee sëriñ ah maa lay ba nga ne coj coj coj cor xam-xam la rek te mi ngi fi ci bopp oh oh waaw man wis bi la la wis ah ah ah mbaw yow eh Ndiaye yow lan la yow. moom ngaa la. ah. torop yow wóoroo te bëccëg dallu ngay sonle nii rek. Ah. waaye ma ne ah ah moo tax a wax de kaay. Ah. waaw xaaral ma andi jumtukaay yi waaye fàtte nga de. billaay yaa ñu la jël. Eh. waaw waaw kay ñëwal ñëwal ñëwal. Ah. war kii ah Ndiaye dafa sonn le Ndiaye lëj la Ndiaye daal bu nit ñi du woor day lekk ci ci desi ceeb yi ba biir bi ne dang dangaara ma rek fatte nga loolu waay eh, xam laa la wax da diglu nag wala man ma dem tëddi wa am tournage waaye lii baaxut a ah, Mbow ah, da ko may ma rek may ma rek Mbow may ma may ma rek kii moom yaakaar naa ni moom miin miin miin miin nañu ko. oh li la manqué nag kii moom loolu moo tax mënoo ko. moo tax mënoo ko mënoo ko. oh sibilaa. oh mi ngi nii nag. xaaral rek. mi ngi nii nag soobee yàlla moom. xëy kamas rek. woor ko rek. woor ko ne mu xool ba xam dana tàkkam déet. ku feneen ko. xaaral rek. ku feneen ku feneen central bi.